tay dañu dajé fi ñaari fan pour waxtaan ci walu formation professionnelle emploi artisanat euh, comme ñi ngi tollu ci école buy ubbi jaadu won na man en tant que ministre de l'emploi de la formation professionnelle et de l'artisanat ma dajale acteur yëpp pour wax leen lan mo ci suma gis-gis selon que li président de la République donc ñu def fi dajé ñaari fan démb ñu dajé ak IAI inspecteur d'académie ñu wax ñu centre de formation professionnelle yi nekk ci biir Sénégal yëpp lan mo fa nek comme jafé jafé lan moy recommandation mais daje bobu nak ñu def ko ak président chambre de métier ak union nationale chambre de métier parce que président mo jël décision boole lépp ci le département donc ñu japp ne waratul am xeej ak sen donc chambre de métier war nañ dem ci centre de formation centre de formation war nañ dem ci chambre de métier parce que lool yépp moy tax ñu mëna former xalé yi bu baax donc tay ñu bolé wo suñu mbokk ARD yi parce que agence régionale de développement ci région boo dem am na fa ñoom ñooy saytu wàllu koom-koom bi ci ak directeur de centre de formation lu tax loolu parce que dañu bëgg école de formation yi du ñu xëy filière du ñu xëy formation mais suñ koy ubbi day dëppoo ak bëgg-bëggu dëkk ba nga xam dëkk donc ARD yi ñëw tey wax ñu.

wax instruction que centre bu nek dina ubbi ben classe bo xam day dëppook ñooñu pour defal leen formation professionnelle bari na ay ndaw yo xam ne tey dañuy jàng bu baccalauréat def bac mais amuñu mais duñ mëna a defaat ma ne ñooñu tamit école bu nek centre bu nek public comme privé surtout privé bu ko bëgg di nga ubbi ben formation pour ñooñu mais ñooñu nak comme am nañ ben niveau yi dañu japp ne tay ci walu information technologie de l'information et de la communication mun nañ ko mun nañ fa def sen formation mais enfin ñoom tamit ci centre de formation ñu ubi formation pour apprenti ndaw yi nga xamni ñi ngi nekk ci atelier yi di jang métier bu samedi wala dimanche wala buñu waccé ñu ñëw ci centre de formation yi jang mais lool yëpp liko lal moy non seulement ndaw ñi dinañ am formation professionnelle dinañ am xam-xam mais dañ leen di jang aussi ñu ñuy sayto sen sen sen yëf parce que buñu def lool yëpp c'est pour que xalé yi mëna am sen liguey te liggéey mun nga am liggéey bu ñu lay fay baax na waaye nag nga am sa yëfi bopp moo gën donc loolu moo tax jàngal leen lu ñuy saytoo seen entreprise day bokk aussi tey ci li nga xam ni moom la ñuy moom la ñuy def ba nga xam ne bu ñu génnee mun a am mun a am liggéey wala ñuy def seen liggéey bopp. waaw malheureusement ñi ngi am ay chantier centre de formation yu bëri yoo xam ni euh, egguñu wala ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe mais à côté aussi am na yoo xam ni yu baax la tey yoo xam ni ñu ngi jox vraiment satisfaction. mais nous bëgg améliorer améliorer bi que nous programme de rénovation de tous les centres qui sont dans les difficultés donc liggéey qui door nañ ministère mais li ci est le président de la République a décidé de centre bu centre bu mag ci biir ci département bu département ak ku ne am centre bu que fukk ak juróom ak parce que formation professionnelle lu ñu war def il faut que suñu centre yi baax rafet am équipement yu bax ñu am gestion bu bax lool moo tax wax directeur de centre dina bayyi xel ci ñi nga xamni ni war nañu nañuy sayto centre pour que mu nekk un élément de communication pour xalé yi mëna sawar ñëw ci centre bi way juri aussi sawar mëna yobu sen dom ci centre de formation waaw euh, ñi ngi leen di ñi ngi wajal euh, programme yu mak pour égaler Sandiara Sandiara xam nga lycée Sandiara xam nga ne lycée bu mak la président de la république tegoon xeer bu ñëk bi. Euh, malheureusement ñu am ci ay jafé jafé mais ñi ngi trouver ay solution pour que ñu puissions ko mun ko mun ko égaler lay lycée lay di lycée bu mag nek ci euh am juroom ñenti junni ndaw 9000 apprenants mais nek ci peut-être ay jafé jafé mais mo félicité ci proviseur Limamou lay ak personnel yépp parce que malgré tout ça ñi ngi def ay résultats yu baax président de la République jox ñu instruction pour que ñu defaraat Limamou lay waxuma sax réhabiliter mais inshallah allahu rabi dinañ ko reconstruire petit à petit xam nga jafé jafé tabax l'école bu mel non moy soo koy tabax mëno génne 9000 élèves donc il faut nga am une stratégie bo xamni moy tax ngay tabax par pour que à terme di nga mëna mais comme ñu wax rek ci dans un programme global pour réhabiliter les centres de formation et lycées de formation